أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu dellusiwaat nañ ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def jëmale ko ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim tey ñu war a waxtaane bindub juróom-ñetteel bi ñu war cee waxtaane kenn ci saxaaba yi nga xam ne bokk nañ ci saxaaba yi gën a siiw ci njàmbaar ci tab ci liggéey lislaam waaye mu bokk ci al asratul mubashirina bil janna maanaam fukk yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam limoon na ne seenug àjjana leer na te ba mu koy waxee ñu nekkoon ci kaw suuf di dund kooku moo di sayiduna abdourahman ibnu xawfin bokk ci waa makkatal mukarrama fa la ganee jamono wax nañ ne mi ngi ganee jamono ci amul fiil ginnaaw amul fiil lu tolloo fukki at maanaam ginnaaw ba amul fiil amee ñu tekki fukki at ci la gane jamono Seydina Abdourahman mi ibn Xawf mi ku teel a dugg ci lislaam la wax nañ ne sax bokk nañ ci bokk na ci juróom-ñett yi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam juróom-ñett yi nga xam ne ña nga féete woon ca barab ba ñuy wax daarul arqam ibn abul arqam ca Makka ñu fa daa làqatu nekkoon fa ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen di jàngal lislaam di leen jàngal it alquranul karim Seydina Abdourahman mi ca juróom-ñett yooyu la bokkoon bi muy dugg ci lislaam Abdou Amrin la tuddoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tuddee Abdourahman bi mu duggee ci lislaam kon ku teel a dugg ci lislaam ba mboolem métti yi nga xam ne saxaaba yi ñu ngi ko doon jànkoonteel ca Makkatal Mukarrama Seydina Abdourahman mi bokkoon na ci ñi nga xam ne métti yooyu doon nañ ko dund ba bokkoon na ci saxaaba yi nga xam ne gàddaayoon nañ sax dem Habasa. ñaari yoon yëpp bokkoon na ca muy gàddaay gu njëkk ga dem xabasa gàddaay gu ñaareel ga dem xabasa Seydina Abdourahman mi bokk na ci juróomi saxaaba yi nga xam ne ñu ngi duggee ci lislaam ci loxoy Seydina Abu Bakrin ca juróom ñooñu di Seydina Zubayri Seydina Usmaan Seydina Talha Seydina Saad ak Seydina Abdourahman mi waaye bokkoon na ci juróom benn saxaaba yi nga xam ne Seydina Omar waxoon na ne bu wàccee liggéey xilaafa gi ñi koy doon fu génn juróom-benn yooyu te juróom-benn yooyu sax la daa diisool ci lu bari loo xam ne ni moom la doon def juróom-benn yooyu di Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Talha Ibn Ubaydillah Seydina Zubayri ak Seydina Saad Ibn Abi Waqaas juróom-benneel bi mooy Seydina Abdourahman Ibn Awf mii ñuy waxtaane kon Seydina Abdourahman bi nga xamee ne it ku tedd ki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee na Màkka gàddaay dem madinatul munawara bokkoon na ci saxaaba yi nga xam ne bàyyi woon nañ seen lépp di jëfe ndigal lool gàddaay dem màkkatal dem madinatul munawara bañ àggee madinatul munawara comme ni mu siiwee ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon jël saxaaba yi nga xam ne ñoo bàyyi ko màkka di xool saxaaba yi nga xam ne ñoo nekk madinatul munawara di jël kenn ak kenn di leen boole di leen mbokkale ngir ñu mën a ànd mën a dimbalante ci àdduna ku ci tane sa morom jàppale ko rawatina waa ansaar googu nga xam ne ñu ngi woon ci ay situation yu baax wax nañ ne ba muy mbokkale ba tolloog Seydina Abdourahman ibn Xawf mii ñuy waxtaane da ko booleeg kuñ naan Saad ibn Rabih Saad ibn Rabih bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne bokkoon ci waa ansaar yi nga xam ne ñoo ëppoon alal ci waa ansaar ku bari woon alal la bi ndajeeg Seydina Abdourahman ibn Xawf Seydina Abdourahman doonoon koo xam ne nii ca jamono jooja yorutoon dara dara dara nekkoon ku ñàkk lool waaye Saad dane ko na nga dalal sam xel na nga xam ne man yàlla xéewale ne ma alal ju takkoo takko ci alal jooju dama ko bëgg a xaaj ci digg bi jox la benn xaaj bi maa ngi lay xamal ne la ñaari tool yi gën a rëy ci madinatu munawara gii maa ko moom ñaari tool yooyu nag bu la neexee nga xool ci bala neex nga jël ko ba ci des ma jël ko maa ngi lay xamal ne it am naa ñaari soxna xoolal bala ca gënal ma may ko baat nga denc ko loolu la ko Saad ibn Rabi wax waaye ba mu ko waxee loolu. tontu bi nga xam ne it moom la ko Seydina Abdourahman tontu ci jëfam ju rafet jooju wala waxam ju rafet jooju tontu bu am solo la boo xam ne bu mat a xam la bu mat a jàngat la it bu mat a jàngat la lim ko tontu mooy da ko sant gërëm ko ñaanal ko it yàlla barkeel alalam jooju waaye it barkeel ak njabootam dat koy xamal ne ko man de su ma sañoon danga may wax ni nga def ba am alal ma daal di def noonu moo ma gënal. kon daal maa ngi lay ñaaral sa alal jooju nga téew ci maa ngi lay ñaaral it mu barkeel maa ngi sant it ci jëf ju rafet jooju noonu ma ko waxee ci alal ji it noonu la ko waxee ci soxna yi Saad ibn Rabi daal di bég lool ci li ko Abdourahman wax ba mu xëyee fu mu jaar rek ci marché bi mu ànd ak moom marché ba mu ko njëkk a yóbbu mooy marché Banu Qaynuqa nga xam ne moo nekkoon marché marché bi gënoon a mag ca Madinatu Munawara Abdourahman nekk fa saa yu xëyee rek ay buntam di gën di ubbeeku waaye wërsëgam di gën di yaatu noonu la demee ba am alal ju takkoo takku ba ëpp la sax Saad ibn Rabi' mii ba noonu la defit ba denc soxna foofee ca Madinatul Munawara wax nañ ne bi mu ñëwee ci yonent bi sax di ko di ko yëgal ne ko am na soxna sallallahu alayhi wa sallam dafa bég lool ne ko ñaata nga ko jox ci can mu wax ko can gu takkoo takku gu mu jox soxna sa yonent bi ne ko ndax ganale nga maanaam ndax céetal nga mu ne ko dëkk ñoo céetal dañoo fas diggante bi rek sallallahu alayhi wa sallam daal ne ko aw lim wala bi saatin ganaleel donte ab gàtt ngay rey maanaam céetalal donte ab gàtt ngay ngay ngay rey loolu day wane ne rek ganale sunna la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle Seydina Abdourahman fekke ne mboolem xare yi nga xam ne yonent bi xare na ko mboolem xare yi mu xare yëpp fekke na ko fekke ne Uhud fekke ne Badar fekke ne xare yooyu yëpp fekke na ko bu ci nekk it jàmbaar te bu mag la fa wane waaye it bokkoon ci ñi nga xam ne dañuy jàppale jullit yi ci xare yi ndax wax nañ ne lim jot a joxe fi sabilillahi ci xeeti naaru góor yoo xam ne saxaaba yi doon nañ ko war di ci xare ji di ci yaatal lislaam yi war naa toll ci juróomi téeméer yi naaru góor bu dee lu jëm ci naaru góor yi rek lim bu takku boobu la giléem yéeg alal ji moom takku na takkuwaay boo xam ne lim ci joxe kenn xamul nu mu toll doonoon ku bari alal lool wax nañ ne sax bi mu fi jógee Ibn Abdul Barr moo ko wax nee na bi mu fi jógee moom Abdourahman Ibn Xawf mi bàyyi na fi lu mat junniy giléem ak ñetti junniy gàtt ak lu mat daanaka téeméeri fas ak yeneeni xeeti alal yu takkoo takkoo takkoo takku yoo xam ne bàyyi na ko loolu lépp day wane ne Seydina Abdourahman mi ku bari woon alal la lool waaye alal jooju it lislaam yëg na ko bu baax a baax ndax jàppal na leen ci bu baax a baax bokk na ci tabam ak mën a joxeem wax nañ ne amoon na tool bu mag a mag loolu imaam Ahmad moo ko nettali nee na Abdourahman amoon na tool bu mag a mag a mag boo xam ne nii ca Madina Munawara da koo jaay ci alal ju takku joo xam ne daanaka lam ko jaay rek mat na arbaxina alf dinaar maanaam ñeent fukki junni dinaar nga xam ne boo ko doon xool ci jamono yi tey jii rek dama naan la ay millions yu bëree bëri wala ay milliards waaye alal ji da koo dajale lépp séddale ko way ñàkk yi nga xam ne ñooy muhajiruna yi nekkoon madinatu munawara waaye séddale ko yi soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne yonent bi daana ko dénk muy jàppale ay soxnaam wax nañ ne it bokkoon na ci saxaaba yi nga xam ne ñoo gënoon a mën a dimbale soxna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bokk na ci mbaaxam wala ci ay baax baaxam bis mas naa toog ca madinatul munawara moom Seydina Abdourahman ñu indil ko ndab loo xam ne nii dafa def aw ñam loo xam ne waa këram ñoo ko toggal ndab loo xam ne ñam wu ñam wu am solo la wu kawe waaye wax nañ ne bi mu ubbee ndab li gis muy ñam wu am solo daa ubbaan ndab li di jooy jooy jooy métti waa kër gi ñëw di ko laaj lu waral jooy yi nga xam ne moom lay jooy mu daan ne ndab lu mel nii day Musab ibnu Umayr musu koo tiim ndab lu mel nii Hamza musu koo tiim di lim ñu baree bari ci saxaaba yi ñoo xam ne dañoo wàccub liggéey mu ne ñoom day liggéeyal nañu yàlla ba wàccub liggéey ca musuñoo tiim lu mel nii kon man su ma demee ba di ko tiim war na maa sant yàlla bu baax nga xam ne dañu bisu keroog boobu jot a xéewlu sax ca ndab loolu Seydina Abdourahman mbokk yi bokk na ci saxaaba yi nga xam ne yàlla tawféexal nañ leen. bañ jiite yonente bi sallallahu alayhi wasallam julli wax nañu yonente bi ñaar ñoo ko mas a jiite julli ka ca njëkk mooy Seydina Abdourahman Seydina Abou Bakrin ci fanam yu mujj yi nga xam ne moom la nekk woon ci Madinatu Munawara jiite na ko ay julli yu bari loolu moom siiw na waaye julli gi ci desaat wax nañ ne Seydina Abdourahman mi moo ko jiite woon ci benn xare boo xam ne nii julli suba la woon wax nañ ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon doon waaj xawoon na yàgg ci waajtaay bi ba waxtu yu bëgg a weesu saxaaba yi daal di dëppoo ci jiital Abdourahman ibn Xaw ba Abdourahman tàmbalee julli gi rek ba jot a julli genn benn rakka rakka bi ci des yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw ànd koog moom wax nañ ne keroog julli googu biñ sëlmalee ba gestu gis yonent bi di ànd ci julli Abdourahman gi saxaaba yëpp dañoo tudd yàlla xaw mel ne lu tiit waaye yonent bi mu sëlmalee da leen xamal ne leen li ngeen def lu mu baax la te it yàlla sant na leen ci li ngeen def moom it bokk na ci saxaaba yi nga xam ne sëriñ bi dana tudd seeni tur di tawasul ci ñoom. sëñ bi ci saxaaba yëpp léeg-léeg day tuddandoo day waxandoo ne saxaaba yëpp waaye léeg-léeg mu cité ay tur tudd leen boo demee ca Tuhfa da nga fa fekk mu naan wa bi shahidin wabna xawfin najjini min kulli ma axaafahu min fitani di ñaan ci barkeb Saïd waaye barkeb Ibn Xawf te mooy Abdurahmaan Ibn Xawf sun borom dimbali ko ci lépp loo xam ne da koo ragal ci xeeti fitna mu musal ko ci kon mbokk yi Seydina Abdurahmaan Ibn Xawf mi ci saxaaba yu tedd yu baax yi nga xam ne ñu mat a jàngat seen dund la bokkoon mi ngi wàccub liggéey ci atum fanweer ak ñaar ci gàddaay gi ca madinatul munawwara ña ngi ko denc baqiya ci armeel yi nga xam ne li ëpp ci saxaaba yi lañ fa denc kon mi ngi wàccub liggéey ci xilaaf ak Seydina Usmaan ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu dolli ko ngërëm dolli ko it xéewal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu